ñu ngi woon ci saal bi comme comme comme ñëpp ko def suñu suñu suñu suñu métier ah waaye bi procureur waxee suñu ci lañ génn mais procureur li mu wax leer na maanaam euh, contre le maire de Guédiawaye Ahmed Aïdara ak ñi mu àndal euh, moom 6 mois la wax dont un mois ferme ak amende 50 000 francs ku nekk waaw man bi procureur waxee nag ci la génn salle bi euh, fekkee mu juge bi li muy wax li mu li mu daanelee kon ça dire que tey jii mën nañ jàpp ne tey ji bu fekkee Ahmed def na un mois ci kaso bi dañ koy libéré mu jeex tàkk bu fekkee nag deful un mois ci kaso bi aussi bon li ko li koy dese li koy dese du bëri mais jàpp nañ ni ak la clémence du juge aussi mën nañ am njort bu rafet ne mën nañ ko libérer mais man je m'en tiens ak li procureur wax mooy 6 mois dont un mois ferme ak amende 50 000 ku nekk. parce que ñoom li leen toppee mooy trouble à l'ordre public manifestation bu ñu interdire ñu def ko loolu la ñu inter loolu la ñu loolu la ñu wax ak Ahmed Aïdara waaw Ahmed nag aussi moom fi mu taxawoon la taxaw ba léegi euh, en tant que maire de Guédiawaye xam ngeen Ahmed aussi euh, dëggal boppam ci kanam juge wax ne moom li mu def aussi. li nekk ci procès verbal bi aussi liñ ñu ko bindal d'accord ci ndax waxu ko mais li ñu mën a jàpp mooy euh, six mois la lañ wax dont un mois ferme ak aussi amende cinquante mille loolu mooy information bi. comme comme comme comme d'habitude ah Ahmed ku ko xam-xam ne c'est un homme boo xamante ne ragalul un homme serein la ñu gis un homme calme bu wax ak bi ak procureur bi di ree ah, des fois toog jàpp ñàmburam maanaam un homme calme daal gisul situation bi lu mu métti métti métti métti aussi nekkul koo xamante ne gis nañ ko mu débordé wala mu wax leen li mais ku ku la ñu gis ku calme mais aussi kuy kuy défendre boppam ci kanamu ci kanamu attekat bi ah waaw ah mais je pense que renvoi mun xalaatu ñu renvoi parce que procureur dégg nga li mu wax procès bi avocat yi wax nañ ñëpp wax nañ procureur li mu wax leer na waaw il a requis par exemple six mois la wax ak un mois ferme ak euh, aussi amende cinquante mille jàpp nañu bon ñun daal am nañu euh, njort ko ne juge bu waxee aussi dina ut clemence daal di libérer Ahmed Aïdara loolu la ñu loolu la ñu loolu la jàpp daal. ah waaw mais waaw mais <laughs> xam nga je pense que ne àtte bi doy na ñoom doyuñu euh, lii am Sénégal jaay doole la manifestation buñ koy wax dañ ñaan la fii la ñuy wax manifestation nga ñëw ci les manifestations bi ñu jàpp la mais manifestation bu ñu wax ne mi ngi amee place de nga génn sa kër Guédiawaye mais ñu jàpp la fekk ñi ñi seen buntu kër jàpp leen kooku yaakaar naa ne bu ñuy wax juste am na fi dañuy ay ay ay ay ay ay ay wax yu taxawul la waaw li ma li ma jàpp daal mooy euh, na justice bi libre exécutif bu mu teg loxo ci justice bi parce que lii xew ni Sénégal xam nañ ne lii carrément nekkul yoon nekkul justice jaay doole la ah jàpp ay opposants jàpp ay tête de liste euh, tëj leen ci kaso bi euh, loolu daal je pense que ne lu ñaaw la ci démocratie Sénégal mais li ñu mën a xaar daal mooy juge bi la ñu mën a xaar mu wax clémence am te jàpp naa ne en tant que ku am njot ci justice Sénégal que juge bu waxee dana libérer Ahmed Aïdara mu jibbi këram comme ni ko waa Guédiawaye bëggee comme ni ko doomi Guédiawaye yëpp bëggee incha allah. jërëjëf le 29 bi ki nga xam bu ñu jàppee leader yëpp euh, moom euh, droit la droit constitution moo ñu ko may moo ñu may que nit ñi war a dem manifestation war a war a war a war a war a yëgle. je pense que bu ñu bëggee jàmb ci réew mi dañ koy mais le huit jaar na fi les gens ont manifesté librement sans problème ñu xëy procureur na affaire rebelle moo fi am jàpp nañu rebel nangam da jaay xar xaw ma affaire keroog n'importe quoi léegi lu ñu bëgg mooy nañ autoriser marche bi Sénégal am jàmb ñi ñi manifester li ñu war a manifester nit ñi dem ñibbi bu ñu deful loolu nag bu réew mi tàkkee ñoom ñëpp ils sont complices vraiment jërëjëf. daal yàlla yemale mbir mi daal tey mu jeex. ah. sama xel mu rafet ndax man toujours damay rafet njortu rek ndax loolu mooy wàllu jullit te jullit laa maa ngi ñaan yàlla daal ci suñu borom bi nga xam ne bii mooy dogal lu ko soob Ahmed Aidara yàlla na koy barke maa moom wala ba mu génn ci li ci jàmm ak salaam waaw. Ah. moom moo leen alhamdulilah rabbil sant yàlla rek ndax tekk joo gis yoon la tekk joo gis yoon la dafa gu sax 5 mois yu mat. lu mu xam ne tey jii dara xaju ci. foo ñu muñal ko tuddi mu xool situation bi mu fi fekk du dëgg voilà loolu laa gis quoi waaw ah, xanaa ñu may ma leew am ñaareel ma takk la loolu rek lay souhaité. bon Mourtala Seck le coordonnateur du collectif euh, du grand collectif Ñoo Lank euh, voilà quoi en, en même temps habitant aussi de Guédiawaye doomu géejawaay bon li ko waral plusieurs région la comme Sénégal nekkatuñ ci démocratie Sénégal amatul yoon Sénégal justice à deux vitesses moom moo fi am làq doom dóor doom il faut qu'on le dise parce que dëkk pour mu am apaisement il faut que justice bi di doxal li mu war a doxal te man foofu damay interpeller encore suñu magistrature di leen wax ne leen apaisement dëkk bi à plus de trente quarante cinquante pour cent nekk na ñoom ci seen loxo parce que dëkk bu ñu demee ba nit ki wóolootul justice am day waral kenn dootul am xel mu dal ca moomu réew. loolu nag dañ koo seet seetlu ci mim réew ci ay mbir yu baree bare bare yoo xam ni euh, daf fi xew fii ci Sénégal li nga xamante ne moom moo ñu fi indi tey nag mooy le frère Ahmed Aïdara en même temps di le maire du département de Guédiawaye moom moo ñu fi indi tey lim ñu fi indee mooy d'abord dañoo doon ay dëkkandoo beneen bi mu doon maire ñetteel mi ñu jàpp ni dañ ko jàpp jàpp ci jàpp boo xamante ni teguñu ko ci yoon li tax mooy fi ñu ko jàppee du millier ba ñu décrété woon moom mooy fi nga xamante ni moom mooy marché ba beneen bi topp ñun gëmuñu ni dossier bi dara ngi ci dañoo gëm ni dossier bi dafa vide yooyu yëpp nag bu ñu ko dajalee ñun dañoo gëm ni moom ak ñi ko ñi ko jàppandool ñu ay camarades dañ leen a war a bàyyi ñu ñibbi pour Sénégal fi mu ne nii climat social bi ku gis na ni mu tàndree ngir Sénégal mën a am jàmm ci tabaski bi ñu jëm leneen li mooy. ci première fois ci démocratie ñu gis ñu jàpp ay député ci xeetu jàppin boo xamante ni ñun gëm nañ ni loolu du yoon moo taxoon ba le collectif doon ñoo lànk di dajale ay euh, nit ak ay organisation ak ay mouvement pour ñu dajaloo de la société civile pour mën a dox ci lii nga xamante ni bu ñu ko seetaanee dëkk bi dina dugg ci guuta kon à travers ma voix ñi ngi interpellé waat magistrature bu Sénégal di waxaan Macky Sall aussi le président Macky Sall ne ko 2011 chaque jour dama koy fàttali maire Gadou Layor di wax ni nit ñi dañoo am droit marche kon man jàpp naa ne ñu autoriser marche dafa gën a woyof ci Sénégal dafa gën a woyof ci suñu police ak suñu gendarmerie dafa gën a woyof ci suñu ay takk der ci coono bii ñu nekkee que ñu interdire marché te interdiction boobu ñu gisuñu foo xamante ni moom teg na ko fa. ci beneen côté bi aussi ñu ngi woo opposition bi à plus de retenue à plus de calme à plus de dal parce que réew mi fi ñu toll nii dafa laaj dal réew mi fi mu toll nii dafa laaj jàmm. réew mi fi mu toll nii soxlaatuñ maanaam safara boo xamante ni buñ ci duggee comme tey sous raison bi bëri na dëkk yoo xamante ni da nga cay dem mënoo doxi say soxla te lii mooy taalum réew te yaakaar naa ni réew bi bu tàkk wa arrangé wul pouvoir arrangé wul opposition ñun nag comme dañoo bokkul ci benn parti bokkuñu fenn fu ñu gis dëgg dañ koy wax ñu ngi ñaanaat opposition bi gannaaw ba ñu leeralee ñàkk dëgg bi nga xamante ni état bi def na ko ba ñëpp dégg ko ñu ngi woowaat opposition bi à plus de retenue à plus de calme a plus ñu xoolaat suñu démocratie bi ñu xoolaat suñu jàmm réew naka lañ ko mën a stabiliser parce que dëkk bi soxla ko soxla na ko adduna soxla na ko sénégalais yi soxla nañ ko ñëpp soxla nañ loolu parce que ku génn sa xel dalul te lii ñun mérité wuñ lii ak deux mois à un mois des élections kon est-ce que bu ñu demee élection pire lu am ci dëkk bi loolu lépp nag bu ñu ko totaliser ñun jël nañ suñu ay tànk jël nañ suñu ay dàll ngir wax ak képp kuy kilifa ci dëkk bi wala ngir wax ak képp kuy mouvement citoyen ci dëkk bi wala ngir wax ak képp kuy société civile ci dëkk bi force vive de la nation ngir lii ñu artu ci parce que ku artuwul da nga atte te atte boobu dina yegg foo xam ne kenn du déglu sa morom ñi ngi sant di gërëm